C'est bon. Donc euh, voilà, vous venez de clôturer cette session, mais bien avant ça, il a euh, les rebondissements. Il a beaucoup choses qui sont passées. Qu'est-ce euh, des je parlerai de dans des verres d'eau et de euh, la part d'une majorité en tout cas qui fait de la fuite en avant, d'une majorité en débandade, d'une majorité en déroute, donc l'actuelle opposition, la majorité parlementaire, donc euh, du groupe parlementaire Benno Bokyakar, euh, qui a manigancé avec euh, la complicité du président de l'Assemblée nationale un scénario pitoyable. Et c'est à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Puisque depuis Euh, la semaine dernière, on avait convoqué euh, les députés en séance plénière. On avait tenu une réunion du bureau. À la suite de cette réunion du bureau, on avait tenu la conférence des présidents pour décider de la tenue du débat d'orientation budgétaire et de la clôture de la session aujourd'hui. C'est hier vers minuit que nous a envoyé une convocation nous demandant de nous présenter à 9h pour une réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Donc en républicain, on s'est présenté à 9h. La convocation, le, le, seul ordre du jour était mis information. On s'est présenté en tant que républicain à 9h dans la salle pour la réunion et on a attendu jusqu'à 10h avant que le président ne vienne daigner démarrer la réunion, sans s'excuser d'ailleurs. Et après une heure de retard, et il nous a dit qu'il proposer l'annulation ou bien qu'on sursoit à organiser le débat d'orientation budgétaire, soi-disant qu'il y aurait des propos offensants ou des propos discourtois tenus contre l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Donc, euh, à notre grand étonnement, euh, nous lui avons fait remarquer qu'il n'était pas courtois de convoquer une réunion déjà à minuit, sans ordre du jour, de la convoquer à 9h et de venir se présenter à 10h sans s'excuser. Déjà, c'est un manque de rigueur, un manque de sérieux, un manque de respect des députés et de l'institution parlementaire, des membres du bureau que nous sommes. Ensuite, le fait de mettre sur l'ordre du jour information alors qu'il avait un ordre du jour précis, c'est-à-dire donner notre avis sur la tenue ou non du débat d'orientation budgétaire, était Et nous avons fait remarquer que hier, lors de la conférence de presse du groupe parlementaire Berno Bokyakar, le président du groupe, Abdoumbo, lui avait fait injonction de tenir la réunion de bureau et il s'est exécuté à minuit commune une marionnette. Et que c'était un manque de respect à l'égard des autres groupes parlementaires. Nous lui avons fait remarquer également un débat est agité depuis l'installation de l'Assemblée nationale, à savoir la falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par, en tout cas, des agents de l'Assemblée nationale ou en tout cas des responsables qui sont au sein de l'Assemblée nationale. Et jusqu'à présent, malgré des saisines par lettre, malgré des déclarations des groupes parlementaires, aucune mesure n'a été prise. Et le sujet n'est même pas évoqué en réunion de bureau. Et nous disons que c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'irrespect par rapport à l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui produit la loi, c'est l'Assemblée nationale qui garantit l'intégrité et la conformité de la loi. Quand vous dites que vous avez un règlement intérieur falsifié, vous devez prendre les dispositions pour corriger cette falsification, cette fraude à la loi. Malheureusement, ils refusent de l'évoquer même en réunion de par fierté ou bien par euh, je ne quoi. Donc, ce qui pose un sérieux problème de respect de l'institution. Ensuite, euh, dire qu'il faut reporter le débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire, pour le rappeler, c'est le ministre des Finances qui présente un document de programmation pluriannuelle économique et budgétaire 2025-2027 qui sert de référence à la préparation de la loi de finances. Ce débat-là ne donne pas lieu à un vote. on ne c'était juste une réunion d'information. À la suite de cette information du ministre des Finances, on nous donnait, nous, la parole en tant que députés. Les députés avaient un de parole de 300 minutes. Le ministre avait un temps de parole de 45 minutes. Nous, entre euh, groupes parlementaires, on s'était répartis les temps les intervenants, on avait tenu des séminaires. Donc c'est aujourd'hui, ce sont les députés qu'on prive de parole, ce sont les députés qu'on muselle, ce sont les que depuis mars, donc c'est une assemblée nationale paresseuse c'est une assemblée nationale amorphe c'est une assemblée nationale dans la léthargie parce que le gouvernement est en train de dérouler son programme de travail comment on peut donner 20 milliards à une institution d'ailleurs il faut le rappeler la commission comptabilité et de contrôle ne s'est jamais réunie pour contrôler le budget de l'Assemblée nationale alors que tous les trimestres on devrait avoir un rapport trimestriel par rapport à, cette, à a vu qu'il y a des dépenses qui ont été effectuées. On sait même pas à combien de milliards, en tout cas, cette Assemblée nationale a été rénovée. Et on nous parle de transparence, on nous parle de réduction de comptes. De qui se moque t Il n'y aura aucune suite, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ce débat d'orientation budgétaire, en tout cas, était à l'intention des députés et du peuple sénégalais pour les informer des orientations économiques et budgétaires des, euh, du gouvernement. Le gouvernement va poursuivre son travail. Ce débat ne donne lieu à aucun vote, à aucun amendement. Le gouvernement s'est présenté. L'Assemblée nationale a convoqué par son bureau et sa conférence des présidents, par des caprices et des, je, je des enfantillages, l'Assemblée nationale décide d'annuler le jour même. Mais <laughs> le travail continue. Si c'est une assemblée nationale qui veut, euh, à qui on remet 20 milliards sans aucun contrôle, et qui est dans ses enfantillages et dans ses, en tout cas, euh, dans ces gamineries, je pense que ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de professionnalisme. Euh, c'est ce que nous déplorons. Et en tout cas, le gouvernement va poursuivre son travail. C'est le processus qui se poursuit. Euh, Qu'il y ait euh, débat d'orientation budgétaire ou non, le travail se poursuit. projet de loi euh, Bon, vous savez, le groupe parlementaire Benno Bokyakar, ils sont toujours sonnés par leur défaite euh, du mars. donc il faut de leurs esprits et qu'ils fassent, qu'ils euh, euh, en tout cas, face à réalité. La réalité, c'est que le pouvoir de camp. Cette dictature, cette tyrannie ne peut plus prospérer. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de continuer notre travail parlementaire en tant que député jusqu'au terme de notre mandat. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Mais je pense que ça, c'est des effets d'annonce, c'est pour euh, euh, des effets de manchette, mais je ne pense pas que cela soit sérieux. le débat c'est sur la base de la humanité aujourd'hui est-ce que de nouveau le président euh, on va le saisir combien de fois on l'a saisi à plusieurs reprises depuis, euh, depuis novembre 2022 il est saisi c'est le même président qui est on le on le dit en conférence des présidents on le répète en biro on le on le dans des conférences de presse On écrit des lettres. Notre collègue Moumoud Lamine Diallo, il lui a répondu qu'il dit qu'il va traiter la demande. Qu'est-ce que vous qu'on fasse de plus Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Nous, en tout cas, on est disposés, en tant que groupe parlementaire, à mettre à jour, à régulariser notre situation, notre règlement intérieur.